Assalamualaikum warahmatullahi wa taala wabarakatuh. barakatuh man la Cheikh Ndiaye Awa délégué Mahsa Salam 5 maa leen di nuyu te di leen di ci ci bis bi tey ñaan sunu waxtaan wi fekk leen ci jàmm musal nu ci li nga xam ne moo lëmbaaje réew mi muy benn président moo am léegi ci réew mi muy coronavirus mboolem président yi doon nekk lépp ay gouverneur lañ ñii ay préfet lañ coronavirus moo lëmbaaje Sénégal nuy ñaan yàlla musal na ci musal ci bépp jullit musal ci àdduna bi yëpp. actuellement marché HLM li fi xew mooy premièrement avant président di lancer eh, maanaam état d'urgence bi ak couvre-feu bi maire bi moo jëkkoon a lancer benn euh, arrêté boo xam ne da ko joxoon marché bi ñuy war a fermer six heures de soir ba huit de matin. après état d'urgence bi dolliku ci ak couvre-feu bi moo indi nag jafe-jafe ci marché bi jafe-jafe boo xamante ne bi xaw naa metti ndax marché bi gis ngeen ko nii kenn nekkatu fi te ci kanam tuuti 6 de matin ñëpp wàcc marché bi dañ koy ferme dara du fi dox bon ci biir loolu nun li nga xam ne moom mooy euh, état d'urgence bi li ci mairie bi waroon a jëkk-jëkk jël mooy bu raxa eh, bu ñu si fermé marché bi 6 heures de soir mu ñu ñu raxas ko ñu man ko pomper ba le matin bu mesuskar duñu fi fekk benn jàngoro mais jusqu'à nuy waxanteeg yéen nii maire bi jëlagu ci benn décision deuxièmement mairie bi HLM day marché bu mag boo xam bi adduna bi yëpp fi ñëw bon léegi waroon nañoo préparer maanaam eh, li ñu muy raxasu ba set maire bi def ay barigo ci koñi marché bi kuy dugg ci marché bi raxasu bu kuy génn mën a raxasu mais yooyu yëpp maire bi jëlagul benn benn mesure ci marché bi luy war a defar marché bi mais maire bi tey droit yi ñi fay ñi ngi koy fay ba léegi muy juuti yi en général mooy eh, abonnement yi moom par mois la waxagu ci nun jëlagu ci benn décision dafay mois bi ñu nekk moment bi ñu nekk ci corona coronavirus bi dañuy annuler abonnement yi wala dañuy aj juuti yi ba jamono bi changé wala lenn loolu lépp maire bi waxu ci dara te bëggoon nañu ñu am ci ay renseignements yu leer deuxièmement maire yi maire yi ci des ñu ngi jël ay ay décision ci seen marché mais sunu marché moom wax vraiment sunu maire jëlagu ci benn décision te it mooy marché bi gën a mag daanaka ci marché yi nekk dakaar muy marché HLM 5 loolu daal fii ne am na inquiétude ci nun boo xam ne bii ko lu ci maire bi war a jël ak lum ci war a wax noon koy woo nag mu wax ci bopp il faut maire bi def li mu war a def nu it nu def leen war a def bon ci mesure accompagnement yi président wax it dégg nañ ko mais nun amoon nañ inquiétude parce que dañoo wax ne dañuy dimbali société yi dañuy dimbali secteur informel bi secteur informel nan lañ ko war a mën a dimbalee modèle yooyu nun impliqué wuñ ci marché yi te secteur informel fii ci marché HLM moom tailleur yi sous région bi yëpp fii lañ daan ñëw di jënd see seeni yére nga xam ne moo doon usine bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest ci wàllu ñaw mais léegi buñ ñu fornee fermé yi nag tey yi fi ñàkk ñu ngi ci en souffrance bu méttee méttee métti kenn liggéeyeetu ci loolu lépp daal ay question la yoo xam ne noo ngi ci xaar gouvernement bi ñu mën na cee tontu ci marché yëpp nag en général jërëjëf